Oh, waaw Zoum ñu ngi fi ci Grand Yoff le dimanche 7 janvier 2024 au tournoi de Bari production des Sangue les deux demi-finales sont dans l'enceinte waaw waaw Bougane ak Boy Faye Bass Ngal John Toubacouta deux demi-finales de choc ndeysaan Bougane ndeysaan mu ngi manœuvre Boy Faye Bougane mooy borom ngembu noir bi Boy Faye mooy borom bu bleu bi Waouh, Les deux demi-finales dans l'enceinte de l'arène Adrien de Grand pour le dimanche 7 janvier 2024 de Waouh, waouh Dimanche 7 janvier 2024 au fil tournoi de Barcelone. Boy, boy, boy, boy, boy, boy Eh, eh, Togna Ndeysaan Waouh, waouh Waouh, waouh boobu waaw waaw eh na Bougane na waaw waaw na waaw waaw demi-finale bi deuxième demi-finale bi ndeysaan waaw waaw Boy Faye eh, eh. na ko Toubacouta na ko